fi mu toog nii mën na fee wecc suñu ndoxam wecc fi yow la ko du lépp ndax jikkoom akub bokkam may na ko ko akub yaatal lislaam may na ko ko diine may na ko ko sa Cheikh Ousmane ak am cër ci Sëñ Tuubaa di nga Sëñ ko wax ko na koog sëriñ bi waaye yooyu dugg ci ak taalibe rek moo ko ñor kon ñaan da lay bàyyi kàddu gi ñu ngi jàll ci en direct te waa Fall FM 105 point 5 rajo Sëñ Cheikh Ndigal Fall di fàttali ni suba ca kër bi ca Mbàkke Bawol foofu Baye Fall doon liggéey man ko war a sëkk suba yëpp Baye Fall bu ko yëg ko te boo xëyee takkal sa der nga bala peel baa palaat baa kaala yow ko ne ngott dem jël sëkk xamaa ku yeex 10 heures ñu nga fekk gaa yi maata ko suba kon na ko ñëpp bàyyi xel xam naa mi ngi doon jàll ci rajo bi jàll ci rajo yi bare bare waaye ginnaaw yàlla dogal na yéen kaay bii day yéen bi Cheikh Ibrahima Fall te Cheikh Fall loolu liggéey Sëñ Tuubaa war toll ci sëkk kër ga suba la ni sëkk kër ga ca Mbàkke Bawol na ko ñëpp déggandoo ku di Baye Fall daa ngay soppe Baye Fall daa nga mii ne ñàkkal Sëñ Bàmba suba daal boo boo naan a kafe lépp képp su kaan kafe dawal boo amul loo passé bokkal sa tànk fi bay waa ko jaayante ko Sëñ Tuubaa ko am déet kon avancé nañu ñëpp kon. وقدي حوائج لسن الدام في خدمة وابن حمراء وقدي حوائج لسن الدام نعمة وابر مرا سنتوبة سنتوبة يفيني يوم أقرش أحمد الخديم سيد بامبا أمر ماس تكنه بريس كوراس أمم الفاسك في بمبا شيخ دارو أسر جاي بولن سي جاي غير شيخ أسر جاي جدنا باي جاي وشي بارك بمبا jërëjëf ñoo gisee ñu barkeeloo barkeeloo sëriñ Ndiak mi ngi toog sëriñ Ndiak Ndiaye te suñu kóllare bu yàgg xamee na président Abdourahmane Niang mi toog comme suñu góor a jaay la wax rek day dégg sëñ bi fu mu teew rek ñun danañ fa teew yëkkati ay xasaay di marché ak di sëñ Tuubaa sëñ Abdourahmane mii rek day kenn bëgg sëñ Tuubaa lool sëñ Tuubaa rek di maamam ko sëñ a waxee rek léegi rek mu jege sëriñ bi lool ku ca dikkee te waneewu ko moom liggéey si tubaab bi moo ko ñor ak lu baax ñu ngi ñaan ci borom mi nit ñëpp wax Cheikh Abdourahmane ne yàlla fekk ci wér. Cheikh Abdourahmane yàlla fi yàgg téwér. Cheikh Abdourahmane ne yàlla fekk ci wér. dafa yàgg loolu ci wér yàgg fi mooy sunu njëriñ yàlla na fi ci wér dana gis sëñ tubaab xasida ñu ngi bëgg bu baax sëñ Jëri Jaay wakaana xal la ñu ñu koy saar bu baax dañu bëggoon yàlla si waaye ñaanal fan a gudd ndax waajur buy toog ay waajuram ci lu wér ci lu leer nañ waaye daa jël juróom gi lépp jëndee taal bi suñu xaadim ñëw sax dina xam ne yaa jur déedéet da lay bàyyi faalam di doog am la xasaayam day bëgg